Euh, ces mines yi nga xam ne mën na am jama te que ni mu demee baaxul trop ni ñu ko joxe ki lance accusation yi du n'importe qui ci ci réew mi déjà homme de justice xam ne baax li muy wax ñaareel bi il a occupé de hautes fonctions dans ce pays ces euh, propos yi mu wax te jii nii yow ndax accordé nga ci crédit bon dama balaa may tontu ci question bi damay dellu si juste si gannaaw ci introduction bi nga def mhm. Sénégal on dirait que du ñu jàng ci dara mhm. euh, étape par étape dañuy perdre suñu souveraineté sur beaucoup de choses sans nous en rendre dañu perdre d'abord suñu souveraineté ci or bi hmm. parce que on a à aucun moment on a essayé d'être des vrais acteurs dans l'or c'est vrai bu fekkee ne euh, le le le les investissements nécessaires à l'exploration et à l'exploitation sont très élevés tu es obligé nga dem jëli multinationales yi mais boo jëli multinationales yi da ngay protéger wu hmm. ngay jéem xool dans dix ans quinze ans naka lay def pour mun a inverser rôle yi jël place multinationale bi pour mun a am souveraineté mun a am raffinerie par exemple nga imposer ko mu def raffinerie or fii ci Sénégal nga xam ne or bi dañ koy raffiner fii ñu def transfert de savoir fair ay sénégalais di ci liggéey di ci jëlee xam-xam mm-hmm. euh, pétrole bi la même chose Euh, waxoon naa ko fi bi ñuy teg institut du gaz et du pétrole di former ay ingénieurs ma ne leen ingénieurs yooyu ngeen di former ils vont finir au moment où on commence l'exploitation du pétrole amuñu expérience boo xam ne compagnie multinationale dina leen jël xam nga ñan la ñu waroon former. Mm-hmm. ay soudeurs ay ay chaudronniers. Mm-hmm. ñi nga xam ne les métiers d'à côté. Mm-hmm. ñu am un vrai contenu local ñooñu mun nañ leen am na ci ñoo xam ne ils sont déjà opérationnels il suffit juste de les capaciter. pour ñu mot mun a liggéey ci plateforme yi. donc yooyu yëpp dañuy raté ñu dem ci souveraineté alimentaire bi suñu suuf si pendant très longtemps yi dañu béy soble dañu béy pomme de terre dañu béy lii ñu ne pombitaire bi du dox et cetera ay indiens ñëw ñu jox leen des centaines de hmm, milliers d'hectares ñuy béy pomme di exporter donc toutes ces choses là day mel ni ñun du njàng ci dara maintenant cette histoire de Diama hmm. moi ce qui ma gêne dans les déclarations des politiciens c'est qu'ils ne font leur révélation qu'à la veille ça s'est passé avec Macky mm-hmm. sur le fonds taïwanais xawma ak la corruption ak mm-hmm. blanchiment d'argent au Gabon exactement la même chose maintenant on parle de de de diamant et cetera. il y avait Tullow Oil aussi en 2019. pourquoi les politiciens détenant des informations sensibles ne vont pas voir l'autorité judiciaire à n'importe quel moment pour le lui montrer et lui dire lii ak lii am na. Mm-hmm. bu wax. sans espérer rien voilà, en retour. sans hmm. espérer rien en retour man c'est ça qui me gêne. Ouais. maintenant euh, derrière tout ça j'ai écouté le ton de la lettre. Mm -hmm. le ton de la lettre n'est pas d'ordre administratif. c'est ça qui me fait douter. Mm -hmm. de la véracité des choses maintenant je n'ai aucun élément. Mm -hmm. qui puisse me permettre de porter un jugement sur cette déclaration mais en tout cas bu fekkee ne mais une enquête sérieuse devrait être menée. Absolument. Mais je pense que le procureur s'est déjà autosaisi là. Il y a eu de plaintes hein? aussi. Le, des plaintes. Alingui, Alingui a mhm. porté plainte. Je pense que le procureur sera obligé d'ouvrir ouais. une information judiciaire. J'ai vu que euh, au niveau de l'Assemblée nationale, mm -hmm. ils ont aussi demandé ah, euh, une, commission, voilà, une mhm. commission mm -hmm. d'enquête parlementaire. C'est trop gros pour être laissé comme ça. Mm -hmm. Maintenant, c'est quoi l'opportunité du moment?